dikkati naa parrainage bi day kenn bëggul ku dul Macky Sall waaye forcé mënu caa ñàkk Macky Sall day ma ngay forcé gars yi parrainage bi tribune yéen kaay daal di xamle ne ñépp ko dàq moom parrainage boobee ne bëgguñu ndax nag boo seetee ba ci biir parrainage la boo xam ne bëri na ay ndëgg sërax dig danger ngir politiciens yi politiciens yi moom waxuñu seeni wax ñoom daal dinañ koy dàq yàgg na nee nañ bëgguñu société civile bi bañ na Africa First bokk na ca coalition citoyenne askan wi si boppam ñi ca ëpp nee nañ bëgguñu FRAPP luttons contre l'indiscipline au Sénégal nitu dëgg des valeurs Sénégal notre priorité priorité yanamar ñoom ñëpp lank nay bugg ñu parrainage bi fas nañu yéene amal ab doxub ñaxtu sax ngir parrainage boobee alerte yéene kaay ne mag moom CEDEAO sax xamal na Sénégal ne ko kaay yaa tooñ nee na nguurug Sénégal parrainage bii nga bëgg a forcé gars tooñ na dakk tey na dakk ëllëg alerte na ma waay waay gémmiñ bu waxul dëgg wax sawaan ba moom président Macky Sall ndax bu Abdoulaye Wade tegoon parrainage bi dina nekk candidat bay nekk président tey tribune ne ma gaaya ma lim sànk ñu daa ñu amal ab doxub ñaxtu ngir ñaawlu parrainage bi suuf su aane ma xëqante rek xëccante dënn ak xeexoo sànnintey xeer ak lacrymogène day boo maytul mu amati ci réew mi réew mi mbaadu tàkkati en tout cas préfet bu ndakaaru Guy Marius Sagna ak ñamu àndal ña xeexoo ci seenu biir de ci nag yoon wa nga xam ne war nañ koo jël am déet ngir xeex parrainage bi Mamadou Lamine Diallo ci 24 heures yéene kaay ne moom président Macky Sall day booba ay inauguré la tal te lépp loo xam ne teg na ko fi niki infrastructure échec la dafa daal di nërmeelu las ne ko Mansour Faye de ma ngay xam le nii BRT bi daanu ko jébbal askan wi ñu mën cee dem ak CBAO ña ngay gréew ngir ñu fay leen seeni salaire booba critique yéen kaay ma ngi may xamal ne waa ànd gësam day ñoom daa daañu dugal seen ñaareelu plan d'action ci gréew la ñuy daal di soobuwaat 24 heures yéen kaay ne ma ndax président Macky Sall tal na leen waa ji day dara sëngam loowu ko jamono ji lu dul njëg yoo xam ne cher nañ ba jéggi dayoo las yéen kaay daal di may xamal ne dara nag cher loowul njëg loo lee lu dul guerre ba am ca Ukraine moo taxit Sall ngaari buur gédee ma ngay nag wallu ca bitim réew ngir ñu wallu nag Afrique ci conséquences yi nga xam ne guerre bi mën na ko am ci ñun le soleil yéen kaay Macky Sall day ma ngay xamle ni Afrique dëgg dëgg jamono ji soxla nag ndimbal kon réew yu am yi war nañ taxaw Afrique las yéene kaay ne nu ñuy def xoolal ma garab yi nga xam ne moom la ñuy fajoo ñun fii ci Sénégal téeméer boo jël juróom-ñeent fukk ak juróom ma ngay bàyyeekoo bitim réew l'observateur ne ma ña ngay caxat caxatee terrain ca aéroport de ñaar fukki milliards ak juróom benn encaissé dañ ko ci yooyu le terrain booba politiciens yaa ngay rayante ci seenu biir de tribune yéene kaay ne médiateur de la république day Demba Kandji ba ñu ko laajee lan la xam ci coow yi am jamono ji ci politique bi ngir di wax wala muy jubol ay politiciens yo xamne dañuy xulo ak di waxante lu ñaaw alerte yene kay ne politique bi day bo ca desee ma xamal la ni digënté sëriñ baara mbacké doli ak boku gis-gis bronuk sey la ñaan baat amna ca tas nam déet te yoon wala nek parti démocratique sénégalais ci diwanu barñek tëngéej 24 heures yene kay ma may xamal ne ña and ak daaw da ñang nag ñang fay menacer à lune maar cey ciowal politique libération ne ma tay la lay xamal de ne nday xadi ndjay wuy ji na niki demb tay ji nak borom kërëm moy wuy ji niki demb nak mom nday xadi ndjay momé di njiital suite boti daal dinañ koy déglu lu toll ci juróom-ñetti waxtu ci teewaayu nag juge d'instruction bi waaye tam premier substitut bi procureur bi moom nag la mu waxoon patron bu aji saar bi woon deltuwu ci ginnaaw daf sa yokk sax ne am na ñoo xam ne ña ngi koy fay xaalis bu takk lool ngir mu suuxal Ousmane Sonko booba critique ne ma étudiant yaa ngay manifester g UGB benn étudiant ñu laal ko bal blanche l'évidence yéene kaay ne ma Israël de ma ngi ca jafe-jafe goo xam ne maar day taali directeur ba nga xam ne jàppoon nañu ne ku mën liggéey la te sawar ca lool suuxal na kër ga nërmel yaa nga ca guddi gu bët setagul nekk ci njaaxle gu yi lool njaaxleeg sénégalais yi kay mooy forum boo xam ne wàllu ndox lañ cay waxtaanee turbine yéen kaay ne ma boobu sénégal day am fi ndox doom bu góor la ñàkkum ndox ay robine yu tëj moom la ñu dëkkee fii ci réewum sénégal ñay liggéey ca seen o ñoom it mer nañ ba futtu ay brassard yu xonq day moo daal di fees dell ca boobu le forum ña ngay waxtaanee ndox mi ci ndakaaru Casamance moom booba ma ngay boy fa ñuy wutee saafara ci benn pàcc ci réew mi ca beneen pàcc ma day ña ngay xeexoo le témoin yéen kaay ne ma Casamance tàng na ay base Salif Sadio dal nañ ci seen kaw rebelle nag ñu bëri ci ñoom ñu daal di leen di teg loxo lu toll ci fanweer ci école ñu daal di leen di tëj ci diggante frontière Sénégal ak Gambie ndax ñàkkub kaaraange jàngalekat yi nga xam ne ñoo nekk ci Nord Sindia ña nga jaxle ba madday taali di woo nguur gi nag ngir mu jël seenu kaaraange critique yéene kaay na ma moom Salif Sadio moomee nga xam ni moom la larme bi di wër daal dina ni may moom réer na kenn gisatu ko Casamance diggante Karu Nord ak Djilan Fale nga xam nag mooy ñaari base yi ëpp doole yu Salif Sadio day larme bi teg na ci loxo larme nii fu ñu mënti làqu ak fu ñu mënti nekk ñoom ñëpp daañu leen wër te daañu leen jàpp l'enquête yéen kaay ne ma waxtu wa nuy dàqee rebelle ca Casamance ca la song ga daal di tàmbalee askan wa nag ña ngi leen di bëgg a faat niki démb daal dina ñuy song ay nit ca Bignona am na ñu bari ñoo xam ne am nañ cay gaañu-gaañu bokk na ci rappeur bii di kilifa nga xam ne dañ koo song ak njabootam mu ami gaañu-gaañu ci loxo ba gannaaw bi ñu leen dàqee ca àll ba ña nga daw nag di sàcc alalu askan wi ak di leen song dir moom nee na juróom-ñetti baasu Salif Sadio daal dina koy nangu ñu bari ci rebelle yi daal dinañ leen di faat faat lu tollu koon ci juróom benn junni ñetti téeméer ak juróom fukk ci doomu aadama Gambie xamle na ni daw nañ làqu seenum réew l'observateur ne ma coowal mi Sénégal gi dakagul de daal dina ñuy boucler enquête ba nag waaye daal weñ wax nga bañee ca mbànjaxaan nga libération yéeni kaay ne mal coow li daal Fatima jonn la déglu nañu Alberta Ndiaye xool nañu vidéo surveillance yëpp bu hôtel Radisson bu jam ñaajo daal dina ñuy dogot dogotee nag waxuk Fatima jonn gi waaye daal lenn la ca mën a jàpp mooy viol amul moom Fatima jonn ci boppam bés ba mu ne enquêteur dina leen jébbal ab certificat d'accouchement ba tey luy wane ni doom juddu na ca ca la fayee téléphone kenn mënu ko gis kenn mënu koo dégg le quotidien le quotidien ne tës baa ngi de ca Mali la amee diggante malek ak Sénégal la bu bay may ga faatu na te moo ne day dafa woppoon ñoom ña nga xam ne ñooy jënt ba jëloon nañu kopparu Macky Sall ngir bëgg koo évacuer waaye nag defuñu ko ba premier ministre ba woon dal di faatoo foofu yéen leen ak jàmm mbokk yi